jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokku internet yu 5M TV Sénégal fukki fan ak juróom-ñaar ba tey rek moomee Ousmane Sonko muy wéy di xiifal kon wàllu wér gi yaramam itam di wéy rek di leen jaaxal ñoom ñi rekk di ko saytu muy nag médecin yi lee kon Ousmane Sonko ba tey rek moom mu ngi ci nag xeex bi bàyyiwul benn yoon dafa bañ rekk lekk bañ na itam rek ñu daal di koy faj ndax boobe ba tey nanguwul rek wax la ca jëm ca pavillon nag teranga bu hôpital principal bu Ndakaaru fa nga xam ni fa la daal di nekk ñoom sax ñoom ña ngay rek topp di waxtaan ak moom ngir mbir mi mu mën koo bàyyi waaye boobook léegi kon Ousmane Sonko daal moom ma nga ŋànk rek fa mu ŋànk ni doo du bàyyi rek benn yoon jëm nag ci xiifal boobee mu daal di nekkee tax na sax kon wàllu wér-gu-yaram moom ma leen di jaaxal saa su nekk. moom docteur Cissé mi nga xam ni rek moo koy assisté ma ngay xam rek jëm ci rôle bu am solo bi nga xam ni nag jëm na ci personnel santé bile ginnaaw googee ñu bañ itam moom rek mu daal di am feebar bu metti jëm ci mbir mi nag wala laata muy jugee foofee nga xam ni ah, fa ko rek daal di teg ba tax na avocat yi ñëpp ñi ko jege ña ngay waxtaan ak moom rek moom Ousmane Sonko ngir rek mu teg mbir mi daal di koy rek bàyyi ci suuf ginnaaw googee itam moom Ousmane Sonko xamle ne nag. sax jëm tey ci fukki fan juróom ci weeru u jëm nak ci suñu mbokku chrétien yi nga xam ni rek dañuy fêter lu jëm ci wàllu Assomption mag leen di rek souhaiter ñoom rakkam yi ak magam yi jëm na rawatina communauté chrétienne bi ci àdduna bi ak ñi nga xam ni sax ñoo fare foofe ca dëkkam di Ziguinchor ngir ñu rekk am fête boobe ci jàmm ci dal ak ci salaam ak ay xol yu booloo